ok alhamdulilah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi santaar suñu boroom subhanahu wa taala ci daje bi ñu dajewaat ci ab néegam fas yéene jël la nga xam ne ab bind la ci téeréem bu tedd bi loolu nga xam ne rasul sallallahu alayhi wa sallam daanañu ci bégal ci ne du daje mukk benn mbooloo ci néeg ci néegi borom bi lu jël téere borom bi di ko jàng lu dul yàlla day wàcc ci ñoom ak dal yiir leen ak yërmandeem sant ay malaakaam ñu ñëw wër leen mu leen di tudd ca malaaka yu kawe ya ne fa moom yal na yàlla boole ci suñ jotaay bi tey mooy juróom-ñetteelu fan ci jumaadal ula suñ maam yi daan ko tudde rakkaatu gàmmo mu tombeeg 23 décembre ci 2020 ñi ngi nekkoon ba tey ci suratu ruum ba yegsi ci la nga xamee ni ni moom mooy aaya fan ñaar fukkeel bi ak ñett ci suñu borom wala fanweereel bi ak ñett ci suñu borom subhanahu wa taala di waxee ni wa ida massa nnaas ida massa nnaasa durrun daaw rabbahum munibiina ilayhi incha allah bu dee cheikh ousmane pare na mu jël lañu suñu bind bu njëkk بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني برمني وإذا مس الناس ضر أربديل نيني دفلين الله الأكلر دعوا ربهم منيبين إليه dañuy woo seen boroom doon aji jeng jëm ci moom summa ida azaqahum gannaaw ba nag su dee daf leen a mosal minhu rahma lu jóge ci moom di yërmande ida fariqum minhum bi rabbihim yushrikuun ci noonu rek benn kuréel ci ñoom ci seen boroom ñu koy bokkaale li yakfuru bi ma aataynahum ngir ñuy weddi la nga xam ne ñun yàlla jox nañu leen ko fa tamatta'u xéew bànneexu leen waaye fa sawfa taalamuun xel sa ngeen a xam am anzalna alayhim sultaana wala boog ñun ñoo wàcce ci ñoom aw lay fa huwa yatakallamu bi ma kaanu bihi yushrikoon lay woowee nekk di wax ca lañ nekkoon di ko bokkaale wa ida azaqna naasa rahma heure buñ mos heure buñ mosalee nit ñi lii di yërmaande farixu biha dañuy daal di kontaan ci loolu wa in tusibuhum sayyi'a waaye bu leen laalee la nga xam ne mooy aw ñaawteef muy loo xam ne lu metti la bima qaddamat aydihim te loo xam ne jiitaloon na ko seen loxo ya isahum yaqanatun ci noonu rek la ñuy nekkee doon ñoo xam ne dañuy ñàkkati yaakaar mooy ñikki dootuñu amati benn yaakaar awalam yaraw an allaha yabsutu rizqa liman yashaa'u wa yaqdir xanaa ñoom xamu gisuñu ne yàlla mooy tàll wërsëg ñeel ku mu soob moo koy gàttalit inna fi zalika la ayatin li qawmi yuminuun nekk na ci loolu de ay kawtéef ñeel ñi nga xam ne dañoo gëm mi ngi noonu mbokk li mooy suratu ruum ci saar boo xam ne mook mboolem saar yi wàcce makka day delloo doomu aadama bi ci mu gëm boroomam jalla wa ala wékku ci moom bañ koo bokkaaleeg dara loolu mooy départ bi nga xam ne ku ko yàlla wërsëgal sa diine ñoŋe na sa adduna ñoŋe na ay réussir nga ca amma koo xam ne pas-pas bi nga war a am ci sa boroom dafa yàqu diine mënatu la baax adduna mënatu la baax suñu borom dañuy jox lenn ci misaal ñooñu seen pas-pas yàqu mu ne li ëpp ci nit ñi dey su dee lor daa dal seen kaw dañuy dellu ci yàlla féetewoo ak moom duñ ko bokkaale ak dara waaye bu dee yàlla daa wëlbati mosol leen lenn ci yërmandeem ci loo xam ne defu ko ngir yërëm leen da koo def ngir mosol leen ko ndax lam xam ca ñoom ñu daal di commencé nag di bokkaale ak seen borom te it loolu mbokk da ngay gis lépp ci doomu aadama yi mboolem catastrophe yi am yàlla rek lañ koy delloo corona bi ba mu xëyee ba tey kenn déggul ñu ne nattub suñ diw la kenn déggu ko amma nag bu dee xéewal yi moom dañuy fekk ne doomu aadama yi ñoom seen wàllu bopp doomu aadama yi ñoom seen wàllu bopp xéewal yépp ña ca amul pas-pas bu leer jàpp nañ ne keneen moo leen ko jagleel ku dul yàlla jalla waala borom boobu subhanahu wa taala nag ne loolee am na ngiree ñuy weddi la nga xam ne ñun ñoo leen ko jox ca it borom bi waxoon nañu ne mboolem xéewal bu nekk ci yow ci yàlla la jóge loolu la jullit war a gëm mbokk doomu aadama yépp buñ dajawoon bëggal la benn la gën a néew duñ ko man lu dul yàlla moo koy dogal borom bi nag ne xéewlu leen bànneexu leen waaye xel sa ngeen a xam bànneex boobu mooy lan mooy bànneexu àdduna suñ borom mu ne mata u dunia qalil firaw naa ngi nii yàlla joxoon ko xéewal yum jox lu néew ci ay jaamam mu mbëru ba taxaw ne man may yàlla mais ndax yàlla da koo daal di alak déedéet yàlla bàyyi na ko fa lu ëpp quarante ans mu nekk di ko nguuru di bànneexu waaye lu mu yàgg-yàgg xam na keneen ku dul firawna it benn la képp koo xam ne yaa ngi nekk ci xéewalu borom bi ba pare di ko sant keneen xersa nga xam suñu borom mu ne waaw ndax man maa wàcce lay buy jàngal nit ñi ne lii ngeen di ñeneen ñii ngeen di sant kat ñu jey ñu jeyoo ngeen sant leen déedéet mbokk julit yàlla wàccewul ci loolu benn lay yenent yi li ñuy kawe kawe malaaka yi li ñuy kawe kawe amul benn lay bu bawoo ci yàlla buy woñe ne doomu aadama bi war ngaa jaaxale ba ja yaakaar xéewalu jibril wala xéewalu muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala xéewal nekk ci yow nga sante ko jibril wala nga sante ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu tax mooy suñu borom yàlla mboolem loo xam ne day jëriñ ay jaamam ci loxoom la nekk mboolem luy lor ay jaamam ci loxoom la nekk bokkaale wu ca kenn borom bi ni bu dee na nag nit ñi dama leen a mosal yërmaande ñu daal di béggee yërmaande boobi farixoo biha mooy bégug bew ak bégug puukariwu amma nag bu dee lor dafa wëlbatiku dal ci seen kaw ci loo xamee ni nii ñoom ñoo ko faggu la ëpp ci ñoom yaakaar ne jeex na dootul baax ba faw boo xoolee bind bi heure bu yàlla dee wax lor da koy delloo ci doomu aadama yi heure buy wax yërmaane da koy delloo ci boppam ndax aaye bañ nar a jàng ca la nga xam ne mooy jeexatulu page ba mooy lépp lu yàqu ci sababu doomu aadama yi la amma yërmaande ci xéewalu yàlla la moo tax borom bi subhanahu wa taala ni su dee def na njombe goo xamee ni ni tax na ma nangu samay xéewal ñu jàpp ne dootu baax ba faw doonte ne ne ab julit moom day gëm boroomam nangu ay nattoom yaakaar ak xeccileem ibrahima alayhi salaam bokk na lu mu waxoon wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dalluun ana kan mooy dem ba jàpp ne yàlla dootu ko xeccilee te dudul ko réer looloo tax ma yow julit chômage bi lu mu tar tar ñàkk jëkkër wala ñàkk jabar lu mu tar tar feebar beeg tumuranke bi lu mu tar-tar ngal la waay bul dem mukk ba génne sa yaakaar ci yàlla deel ñaan foo mën a toll di am yaqin foo mën a toll ne yàlla du neenal la nga xam ne mooy seen ñaan te nga xam ne sa xam-xam dafa limité kàttanu borom bi amul limite borom bi mën na laa xeccalee foo xam ne fooga woo ko fa woon abadan loolu moo tax ba julit du dem mukk di def la nga xam ne mooy alqanuut wa man yaqnutu min rahmati rabbihi illa daalun borom boobu nag di delluwaat ki ñii nga xam ne su xéewal jotee ñu sant keneen su natt yi taree ñu jàpp ne c'est fini dara dootu baaxati xanaa ñëw xamuñu ne yàlla muy nattu ay jaamam di tàllal wërsëg ñeel ku ko soob di gàttal wërsëg ñeel ku ko soob ca mbokk loolu mooy réalité bi doomu aadama yépp constaté benn waaye ngi nii jàng na ba yëy ay këyit mboolem lijaasa am na ko te ci lijaasa la dee benn waaye ngi musul toog ba mu école xamul dara turam sax mënu ko bind ñu naan li immeuble bee immeuble bee moo ko moom loolee amul benn raison mbëri làmb yaa ngi fii ñu leen di dimbali amuñu dara gis waa joo xam ne mi ngi koyoon koy mi jóg di daanu yàlla may ko lu dul jeex kon alal moom yàllaa koy jox ku ko neex yàllaa koy xañ ku ko neex ki ko yàlla jox lu tax mu jox ko ko da ko koo jox ngir natt ko ndax dana sant yàlla wala day bew ki ko yàlla xañ te def na waru garam lu tax yàlla xañ ko ko yàlla da koy nattu xool ndax dana muñ muñ gu rafet lii rek mooy mbir ci moom la yonent bi alei salaam doon wax naan ajaban li amri l mumin inna amrahu kullahu lahu xayr ak yémi mbiri julit léppam yiw la xéewal yi baawaan na da ngay fekk muy sant yàlla mu wëlbati ko nekk xéewal ci kaw xéewal natt yi tar na da ngay fekk muy muñ muñ gu rafet loolee wëlbati ko nekk xéewal ci kaw la nga xam ne mooy natt yi mooy julit di perte ci benn xaal moo tax borom bi ne kawteef mi ngi ci lii ñeel ñi nga xam ne dañoo gëm yal na yàlla boole ñu ca mi ngi noonu Cheikh Ousmane.
فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون barakallahu fikum suñu boroom jalla wa ala mu ne fa aati zal qurba xaqahu joxal aji jege ñaale ji lii di aqam wal miskina wabna sabil jox ko aji ñàkk ja jox ko ki tumuranke ca nekk ci dëkk bi muy doomu yoon zalika xayrun lilladina yuriduna wajha allah loolu day mooy la gën ñeel ñi nga xam ne dañoo bëgg kanamuk yàlla ga wa ulaika humul muflixuun ca ñooñu day ñooy ñi nga xam ne ñooy ña texe wa ma aataytum min riban liyarbuwa fi amwaali nnaas lépp loo xam ne yéen a ngi koy joxe ci riba ngiree mu mën a fulu ci alalu nit ñi fala yarbu inda allah du nekk mukk di fulu ci yàlla wa ma aataytum min zakatin turiduuna wajha allah lépp lu ngeen joxe nag ci zakat te mooy ci farax nam mu ca kanamu yàlla ga fa ulaayka humul mudaifuun ñu mel nii day ñoom la ñuy dubleel fulalal fulalal leen la nga xam ne mooy seen am am allahu lazi xalaqakum summa razaqakum yàlla mooy ki leen bind gannaaw ba moo leen wërsëgal suma yumiitukum suma yuxyiikum mooy ki leen di rey gannaaw ba moo leen di dekkal hal min shurakaikum man yafalu min zalikum min shay'in ndax ñépp ñi ngeen di yaakaar te du yàlla am na ku ciy def lenn ci lii ci lu mën a doon subhanahu wa taala amma yushrikun sell na ca kawe ci liñ koy bokkaaleel zahara alfasadu fi lbarri walbahr feeñ na ak yàq ca la nga xam ne moom mooy jéeri ji ak la nga xam ne mooy géej gi bi ma kasabat ay dinas te la nga xam ne loxoy nit ñi fàgg nañ ko fàggu nañ ko yuziqahum baada allazi amilu ngire mu mosal leen lenn ci li nga xam ne ñoo koy jëfe laallahum yarji'un ngire ñu mën a dellu gannaaw mi ngi noonu mbokk suñu borom nee na mooy jël wërsëg di ko tàllalal ci ko ko neex ay jox ko loo xam ne romb na ay soxlaam ba muy denc suñu borom yàlla nag ne loolu ngay denc jox ci aji jege ñaale yi seen aq te it ñooñu mbokk ñooy ña gën a yey te ña nga xam ne ñoom ngay dimbali frère yaag bajjan yaag nijaay yaag ku la gën a jege ku la gën a jege waaye nag bul wax ne samay mbokk rek lay dimbali képp koo xam ne aajo woona muy miskin nga xam ko dimbali ko ci alal jooju ki nga xam ne daa jóge ci am réewam ñëw ci dëkk bi tumuranke ngalawaay dimbali ko ba mu mën a yegg fa mu jëm borom bi nee ne loolu day moo gën ñeel ñiy namm kal la nga xam ne mooy kanamug yàlla te mooy namm ngërëmal yàlla jalla wa ala te ñi rek ñoo ñi texe loolu kon mbokk ju leen xamal ne alal ji ngay jël di ko joxe borom bi nee na looloo gën ci yow doomu aadama xamal ne li gën ci sa alal mooy la nga joxe te yàlla tax loolu mooy li gën ci sa alal te it loolu moo lay tax a texeel adduna moo lay tax a texeel la nga xam ne ni mooy alaxira borom boobu subhanahu wa taala mu ne kon loolu la jullit war a def mooy sakku kanamu yàlla ay ngërëmal yàlla loolu moo taxit ba bépp dépense booy dépenser te jubluwoo ci yàlla kese yàlla du ko nangu bokk loolu mooy ixlaas waa ji tabaxoon téeméeri jàkka dundal na un million de masakin waaye bu dee jubluwaayam mooy nit ñi tagg ko rek loolee du ci am benn njëriñ malheureusement nattu la bu ko yàlla nattoo jigéeni Sénégal da ngay gis koo xam ne ndeysaan ma ngay tontu ñu guddeeg bëccëg bokk ci ay tontine bokk ci ay lépp bis ñu ne dañ koo dafa am ngénte wala dañ koo ndeyale mu ñëw ay maali maali maal rangale ko teral diw teral diw teral diw teral diw ndax loolu yàlla moo tax déedéet yépp xam ngeen yàlla taxul mooy rek ngi ne ñu tagg ko géwél yi woy ko balaa une semaine ñu fàtte ko loolee mbokk ku nekk ci jigéenu jullit ñi war naa bàyyi xel loolu waaye li nga xam ne def nga ko ci yàlla tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na day ki bëgg a texe dëgg dëgg dëgg mooy kiy jël alalam di ko joxe ci yàlla tax léegi nag mu indi keneen koo xam ni moom daa jël alalam di ci liggéey ci riba suñu borom yàlla nee na yow day yaay jël sa alal ngir alal ji yokku ci yow waaye xamal ne alal ji yokkuwul ci yàlla amma ki jël sarax joxe ñu mel noonu day la seen alal di fulu ci yàlla te mbokk kii sarxe ak ki génn riba ñaari extrémité lañu kii daa am xool ñi nga xam ne dañoo néew doole mu ñëw masalan lebal la cent mille ne laa da nga ciy teg dix mille francs mu jël dix mille ci aqu faqir yi dolli ci alalam kee moom am cent mille yëkkati ci dix mille moom jox ko la nga xam ne mooy fuqara uy suñu borom yàlla nee na ku jëkk ki nga xam ne jël na aqu riba dolli ci alalam mu jàpp ne alal ji yokku na daa juum alal jooju yokkuwul yàlla day dindi barke bi looloo tax ba nekk ko tam riba day dajale dajale dajale ba bis rek yàlla indi catastrophe alal ji yëpp naaw wala yàlla roof ko feebar boo xam ne dootu ci mën a noosati ci dara amul lu mu koy jëriñ amma waa ji nga xam ne moom cent mille francs jël na ci dix mille joxe quatre-vingt-dix mille la dese kee dese cent dix mille la yàlla di ful mooy la nga xamee ni nii mooy lañ génn sarax moo tax yonent bi alei salatu wasalaam ne sarax day du wàññi alal bal da koy ful riba it mi ngi noonu du yokk alal naam yokk la ko ci zahir mooy un million nga leb la woon dalul lañ ne ci cent mille yokk na ci zahir waaye xamal ne barke ba dem na waajee sarxa it wàññeeku na ci zahir waaye xamal ne barke ba fulu na moo tax suñu borom ne ulaika humul mud'ifun mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala nag wëlbatiku waat dañuy xamal ne moo ñu bind ay doomu aadama del fàttaliku loolu ku nekk ñun war nay toog man fan laa jógee mooy yàlla la soob mu neex ko benn bis mu commencé le créer à partir de zéro ay nit dañuy nekk fii sëy 40 ans du ñu am doom ay nit dañuy nekk fii sëy pendant deux ans trois ans amuñu doom xëy xëy rek yàlla créer doom kon yow yàlla la créer bind la ci coobareem nga nekk la nga xam ne moom mooy ak moomeelam gannaaw ba moo la wërsëgal wërsëgal la la nga xam ne masalan ay loxo ay tànk am na jaam yu amul loxo am ñu tànk wërsëgal la ay bët day dégg am na ñoo xam ne du ñu dégg am na ñoo xam ne du ñu gis gannaaw ba mu wërsëgal la alalu àdduna soxna doom lii lépp ci yàlla lay jógee borom boobu nag ne xam leen ni lu mu yàgg yàgg nag danaa leen masa rey te danaa leen masa dekkalaat waaw ñeenti yii ca mooy la nga xamee ni nii mooy bind wërsëg rey dekkal ndax am na keneen ku ñu yaakaar ku dul yàlla ne dana ko def déedéet moo ko jule yàlla bokkul ak lii kenn moo tax suñu borom ne sell kawe sell na ca kawe ca la nga xam ne ni ñu ngi koy bokkaale mu daal di ñëwit mbokku adduna bi bi ñu fi yàlla indi daf ñu fee indi ngir ñu jaamu ko wa aataakum min kulli ma sa'altumuhu lépp lu doomu aadama soxla woo woon pour jaamu yàlla ci dal rek yàlla def na ko ci kaw suuf génération bu ñëw tey lañ soxla woo yàlla indi ko masalan sunu maam yi ci gannaaw matt lañ daan toggee waaw tey bu doon tere dañ ne ndakaaru gi gépp balaa kenn añ day taxan matt gaa yi ndax àdduna du tukki bañ demee ba xam ne yàlla nit ñi soxla nañ gaz yàlla indil ñu gaz soxla nañ pétrole yàlla indil ñu pétrole pétrole boobu nga xam ne daanaka yàggagul ci kaw suuf tey quatre-vingt-dix pour cent doxalinu àdduna bi base mooy pétrole kon lépp yàlla indi na ko créel ñu géej gi ngelaw yi lépp taw baa ngi wàcc garab yi des millions li ñu mën ne kenn xamul mu toll ñu war a nekk ci dal jaamu yàlla heure bu désordre amee rek doomu aadama yi ñoo jàdd yoonu yàlla tremblement de terre am na géej gi débordé na corona bi ñëw sonal ñu lool bépp façon feebar bépp façon nattu xamal ne la tax yàlla indi ko mooy nit ñi ñoo sax ci bakkaar yàlla indi ko ngir nit ñi dellu gannaaw nga ne ma waa mais jullit de géefér yépp lay dal naam suñu borom mu ne wattaqu fitnatan la tusibanna lazina zalamu minkum xaasa moytu leen fitna bu ñëwee du yem ci ñi tooñ rek loolee nag doomu aadama yi bu ñu xamoon delluwaatoon ci yàlla wallahi suba suba suba corona jóge fi suba suba suba nit ñi yépp dëppoo woon tuub toroxlu dellu ci yàlla suba suba suba corona jóge fi corona mbokk benn jaamu yàlla la waaw bi gis nañ ko muy benn virus boo xam ne gis nañ ko donte ne pour nga gis ko buti neen ay millions nga koy multiplier loolu nekk ci kattanu yàlla yàlla ko fi indi comme ni mu yàlla indee njéeréer yi ndax yéen a ngi fàttali ko ana njéeréer yi yàlla indi leen ñu nekk des milliards jóge ay Niger jóge ay Burkina traverse l'Afrique des milliards et des milliards des des milliers de milliards sax suñu borom yàlla bàyyi leen fi la ko soob xëy xëy yóbbu leen ñu dem naka noonu it bépp façon maladie la nga xam ne moo koy doxal ay mbindaafanu yàlla la ay soldaalu yàlla la yàlla leen di yónni heure bu leen waxee arrêté ñu arrêté loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax léegi nag suñu borom mu ne catastrophe yi bari na ci jéeri ji bari na ci géej gi na am en 2004 la ñu gis tsunami bi amoon fële en Indonésie ak di ko wër benn 3 minutes presque yàlla génn ci géej gi rey ci plus de 300 000 personnes loolu am na waaye nag gannaaw loolu aay bi heure buñ koy jàng yàlla waaye yow sénégalais bi bàyyil xel historiens yi dañ ne ci accident yi am ci biir géej bi ci gën a grave mooy bato Joola gars yi loolu tiitlu wala gars yi ba xam ne ah suñu réew mi mag ñu baax ñu fi dëkk jàmm doo nga fiy xew ca planète Terre laa la wax mboolem accident maritime du Titanic du lenn mboolem accident maritime yi am ci kaw suuf benn bato suuxandoo ak lu jege 2000 personnes Sénégal rek la am loolu kon moo tax ba mbokk ku nekk ci ñun war a tuubaat te it jàpp naa ne yéen ñëpp xam ngeen ne it li fiy jóge ci wax ju bon ah jàpp naa Sénégal rek ah la am donte na xaw ma kumpali xaw feneen waaye daal li fiy jóge ci wax ju bon kenn xamul nu mu toll loolu it mooy sur le cas général waaye it sur le cas individuel yow nit kan la waaye heure boo xamee ni nii ay jafe-jafe am na ci sa dund ay xat-xat xoolaatal sa bopp tuubaatal toroxluwaatul baril istixfaar jéggulul sa borom delluwaat ci yàlla insha allah loolu boo ko defee suñu borom yàlla teggi la la nga xam ne mooy say nattu yàlla na yàlla wërsëgal ñu dellu ci moom dellu ba gën a rafet mi ngi noonu Cheikh Ousmane
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ويذيقكم من رحمته
barakallahu fikum suñu borom mu ne qul siiru fil ard neel dox leen ci kaw suuf fanzuru kayfa kaana aqibatu alladina min qablu ngeen xool naka la nekkee mujjug la nga xam ne ñoo jiitu woon kaana aksaruhum mushrikin nekkoon na la ëpp ci ñoom di ay bokkaalekat fa aqim wajhaka li diini alqayim taxawalal sa kanam ñeel diine ju jub ji mi ngi noonu min qabli an yaatiya yawmun jiitu mu ñëw bis boo xam ne laa maradda lahu min allah amul kenn koo xam ne dana ko mën a delloo ci yàlla yawma idin yasaddaun kerew la nit ñi di teqali ko man kafara fa alayhi kufru ku weddi dana dellu ci mu ak kéeféeram wa man amila salihan ku jëf lu baax nag fa li anfusihim yamhaduun seen bopp rek la ñuy yombalal mi ngi noonu almahd mooy berceau mooy fi dalal mi ngi noonu li yajziya allazina amanu wa amilu salihat ngiree mu fay ña nga xam ne dañoo gëm te jëf-jëf yu yiw ya min fadlihi ci ay ngeneelam innahu la yuhibbu alkafirin ndax yàlla day moom bëggul yéeféer yi wa min ayatihi an yursila riyaha ci ay kawtéefu yàlla bokk na ci mooy yónni ngelaw ya mubashiratin mu nekk luy bégalaate wali yuziqakum min rahmati ngiree mu mosal leen ci yërmandeem wali tajriyal fulku bi amrihi ngiree mu daw la nga xam ne mooy gaal ga ca la nga xam ne mooy ci ndigalam wali tabtahu min fadli ngiree yéen ngeen sàkku ci ay ngëneelam mi ngi noonu li tajriyal fulk bi amri gaal ga daw ci ay mbiram wali tabtahu min fadli ngeen sàkku ci ay ngëneelam wala allakum tashkurun ngire it ngeen doon ñuy sant mi ngi noonu mbokk alxuraan ji mi ngi wàccoon ci makka waa makka yi lépp ci ñoom weddi suñu borom nag mu ne dox leen ci kaw suuf da ngeen fekk ne ñii di xawmu Huud ñi ngi woon seen ndeyjoor fii ci Yemen ñii di xawmu saalix ñi ngi woon fii ci seen càmmoon ci biir Arabie saoudite ñii di xawmu luut ñi ngi woon fii ci Jordanie ak xawmu Shuayb ak ñëpp dox leen ngeen xool naka lañ mujjee mooy ñoom ñëpp dañ doon bokkaale suñu borom yàlla bi mu indee ay mbiram seen xërëm yee jëriñu leen dara yàlla subhanahu wa taala alag leen kon bokkaale amul njëriñ moo tax borom bi ne taxawalal sa kanam ñeel diine ju jub ji ba gaa yi lan mooy diine ju jub suñu borom yàlla mu ne wa ma umiru illa li yabudu llaha muxlisina lahu diina xunafaa wa yuqimu salata wa yutu zakata wa zalika diinul qayim diine ju jub mi ngi commencé ñu jaamu yàlla bañ koo bokkaale ak dara diine ju jub mooy nga taxawal julli naka yàlla santaani diine ju jub mooy nga bokk ci ñuy génn zakat suñu borom yàlla nee ne lii mooy diine ju jub ji taxawal ci sa kanam ay bu ca xool ndeyjoor bul xool càmmooñ mooy as-siraatul mustaqim balaa ñëw bis boo xam ne kenn du ko mën a delloo bis boobee ñaari bis la mooy bis ba la cay yóbbu ak bis ba ca boppam bis ba la cay yóbbu mooy si bisub dee boo ko julit ak kum mën a doon bis bu dee ñëwee amul kenn ku ko mën a yeexal benn minute comme kenn mënu koo gaawee benn minute ka jaarul woon fa neex yàlla dana ñaan yàlla delloo ko gannaaw rabbi irji'un waaye du ko jëriñ dara laa maradda lahu min allah gannaaw ba it àllaaxiraa ngi ñëw di bis boo xam ne kenn mënu koo teg jaam yépp dañ fa daje suñu borom nee na bu keroogee li nit ñi di doon ñuy teqali ko dana am teqali kooku rëy diggante jullit ñaa ngi yéeféer ya dana am it teqalikoo gu rëy diggante yéeféer ya seen bopp mooy ku nekk da nga doon sa noonu moroom mi ngi noonu amma borom bi xaaj nit ñi ñaari xaaj benn xaaj ca àjjana benn xaaj ca saayir borom boobu nag ne képp kuy weddi weddeem nga ca moom lay dellu te loolu di xéewalu yàlla gu baax wax nañu sànq suñu borom mu ne moytu leen fitna du yem ci ñi tooñ rek damay réglu àdduna dañuy gis benn waay boo xam ne ay mbokkam ñoo def musiba loolu yóbbaale ko mag ñi fi nekk xam nañ événement Mauritanie am na ay naar yu ñu rendi fii xamuñu sax fu Mauritanie féete mais dégg nañ ne am na Sénégal yu ñu rendi Mauritanie xale yi gàddu seen i yet ak seen i jaasi naar buñ gis rey ko loolu mbiri adduna la natt la bu yàlla di nattoo dama adama ci adduna am na alaxira kii moom bi muy ñëw alaxira baayam yéefar bi gën a bon la nekkoon doomam yéefar bi gën a bon la nekkoon waaye moom mi ngi woon ci yoonu njëb ndax dañ naan yow mii kat bàyyi bu bon nga amoon wala doon ju bon nga amoon juge ko ci loolu déedéet ña weddi weddi ga ci seen bopp lay dem moo tax suñu borom yàlla jox ñu ci ay misaal xaritam ba ibrahima alayhi salaam mu def baayam ba nekk yéeféer mu nekk misaal yeneen ci yàlla nuux mu def doomam nekk yéeféer mu nekk misaal man kafara fa alayhi kufru loolu nag nit ñi daañ ko nangu li nit ñi doon nangu kay mooy la ca tegu suñu borom ne wa man amila salihan fa li anfusihim yamhadun ki def lu baax it boppam dong la yombalal ñun nag dañ ne déedéet sëñ bi moom daal liggéey liggéey yaay léegi gis ngeen mi nga noonu waaw kéefër gi moom ma des na koo yemale ca kam ka kéefër waaye mbaax gi moom ku nekk jàpp nga ne am nga koo yaakaar lam defal yàlla yow xat nga ci mi nga noonu sama mbokk bi saaxo yàlla yàlla dolli ñu tawfeex dellu ko ko dana dafa toog ci benn jataay benn waay dafa waaraate am kilifa gu mag jóg na ko waaye sëñ bi d'accord li ngay wax yëpp jaru ko xanaa lu ngeen gàtt gàtt gàtt xel xam ne quota sëñ diw ñun ñëpp xaj nañ ci yaa ngi dégg gaa yi fettaxu gis ngeen ala kulli xaal mbokk loolu suñuy wax la firiwul ne sëñ diw daa baaxul ak kay aka baax ba mel ni jibril aka baax ba mel ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye muhammad boobu day moo taxawoon ca safa daal di ne ay yéen waa quraish ay yéen waa bani hashim ay yéen fatima fexe leen mucc ci sawara de mënulu ma leen ci yàlla dara yaa ngi dégg li muy liggéey boppam la ko doon liggéeyal borom boobu nag subhanahu wa taala ne moom day mooy ka nga xamee ne nii dana fay ña gëmoon ca doon def lu baax ci ay ngëneelam ndax moom bëggul yéefeer te it mbokk julit suñu borom ngir bañ kenn yaakaar kenn amul kenn ku liggéey paasu ajjana amul képp ku dugg ajjana ngëneelu yàlla la tey da ngay xool yeneen ci yàlla nuux dund na fi mille ans di jaamu yàlla waaw gars yi àjjana ñaata at la àjjana du un million d'années àjjana du un milliard d'années àjjana ba faww la waaye léegi mille ans yooyu nan lay mën a weccee loo xam ne ba faww la ciy xéewal kon képp ko dugg àjjana ngëneelu yàlla nga fa duggee amul kenn ko paasa mat yeneen ci bi alayhi salaam ne sahabatul kiram bu leen rey seen bopp ànd leen ak dal xam leen ne kenn du ci dugg àddina lu dul ci ngëneelu yàlla ak yërmandeem ñu ne ko même yow mu ne même man même man loolu lépp pour lan ngiree kenn bañ a yaakaar keneen ku dul yàlla jalla wa ala borom bi nag nee na bëggul yéeféer yi awa yàlla lu tax alal ji ëpp ci àddina ñoom nga ko jox borom bi mu ne li yazdaadu isma waaw dama leen koo jox ngir ñu mën a bakkaar bu baax ba ëllëgi ki sibir ma am lay yu ma leen mën a mbugale bu baax mbokk loolu mooy yéeféer ala waaye ndawal julit bu mu la nax ma naxte ji Occident ak nit ñi mbëroo allo adduna yëpp ñu ngi ci ñoom loolee nattu yàlla la jalla wa ala borom boobu nag dañuy won ne adduna bi moo ko moom te yaakaar naa léegi tey France ak Angleterre ak Amérique xam nañ ne adduna bi am na borom yàlla mi ñu indil corona xam nañ ne adduna bi li ñu daan tuddee les grandes puissances wallaay du ñu grande puissance mi ngi noonu adduna bi daa am benn puissance mu puissance suñu borom borom boobu nee na mooy yónni ngelaw yi ngelaw yi ñëw di bégalaate ca la nga xamee ne mooy yërmande mbay wàcc muy taw bi ngelaw yooyu mooy puus gaal yi bu ko defee ñuy mën a traversé géej gi di dem fa nga xam ne fa ngeen di sàkkoo ci ay ngëneelam lii lépp nag bi ma leen koy defal xam dama ko defuma ko ludul ngeen xam ne man may yàlla bi yor xéewal yi ba bu ngeen dee sant du ngeen sant ku dul man yàlla na yàlla boole ñu te ñooñee mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء إذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير jazakumullahu khayra suñu borom mu ne wa laqad arsalna min qablika rusula yónni woon nañ jiitu la ay yonent ila qawmihim ñu jëm ca seen xeel ya fa jaa'uuhum bilbayinaat ñu dikk leen ci ay layu leer fantaqamna min alladina ajramu noonu la ñu fayoo ca ña nga xam ne dañoo saxoon ca bakkaar yu mag ya wa kaana xaqan alayna nasru almuminin te nekk na àq ci ñun yàlla ne daan dimbali julit ñi allahu alladi yursulu riyaha yàlla ma nga xam ne mooy yónni ngelaw yi péex ya fa tusiru sahaaba mu daal di yëkkati ay niir fa yabsutuhu fi samaai kayfa yasha yàlla tasaaru ko tàllal ko ci kaw asamaan yi nu mu ko soobe wa yajaluhu kisafa def ko ay daggit daggit fa tara alwadaqa yaxruju min xilaali nga daal di gis taw ba di génn ci diggante ah dagg ci niir yooyee fa ida asaaba bihi man yashaau min ibadi su ko laalalee ñamu soob ci ay jaamam ida hum yastabchiruun ci noonu rek ñu nekk di feeñal seen mbég wa i wa in kaanu min qabli doonte ne nekkoon na lu jiitu an yunazzala alayhim ñuy wàcce xéewal googa ci ñoom min qablihi la mublisin nekkoon nañ ñoo xam ne nii demoon nañ ba dagg seen yaakaar yépp ci yàlla mi ngi noonu ne dootuñu tawlooti fanzur ila asari rahmatillah xoolal la nga xam ne moo nekk ci jeexatul yërmande yàlla kayfa yuxyi al arda bada mawtiha naka lay dekkale suuf gannaaw ba suuf dee inna zalika la muxyi al mawta lii day ka nga xam ne moo ko def mooy ka nga xam ne mooy dekkal ñu dee woon wa huwa ala kulli shay'in qadir te mooy ki am kàttan ci lépp lu mën a doon mi ngi noonu mbokk suñu borom dane jiitu yonent ci yàlla bi yónni woon na ay yonent te it ñu xam ne yonent yépp ñoo ko jiitu moo nekkoon yonent bi mujj a ñëw na am temps yi réseaux sociaux yépp coow li nee na ci kurru jëree am na ab yonent boo xam ne daa feeñee ca Kolda loolee mbokk parce que lu bees la nit ñépp di ci wax waaye mbokk yonent Kolda ak bu Dakar ak bu Kaolack Tamba ñoo yem képp koo xam ne woote na yonent gannaaw yonent yàlla Muhammad mbokk loolee gëm ko mooy weddingal Quran fan ka gëmee rek weddingal Quran wóoroo caa sikk sakk da nga war a am yaqiin ne déedéet loolu ñuy wax dara amu ci mi ngi noonu imma cheytaane moo leen feeñu wala imma ñu nekk ay turion waaye yonent moom qabla ka rek lay mën a doon avant yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom boobu nee na yonent yooyu indi woon nañu lay yu leer ay preuve yu wane ne yàlla moo leen yónni te yonent bi alei salaam nee na yàlla musul yónni benn yonent lu dul jox na ko mu'jiza mu'jiza mooy loo xam ne adduna buñ daje woon kenn mënu ko bokk nañu ci mujjoon yonent yàlla Muusa yoroon na yat boo xam ne bu ko sànne mu nekk jaan buy dund mu téyewaat ko mu nekk yat mi ngi noonu yonent yàlla isa da doon nit ku dee kenn xamul mu dem ci bàmmeelam woo ko mu jóg taxaw nit da daan jóg indi la nga xam ne feebar gaana ba dagg kii juddoo gumba laal la lay def rek nga daal di wér ci kaw loolee kon ay mu'jiza la amma nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom lay bi gën a rëy bi mu indi mooy téere bi ñu tiim nga xam ne lay la buy sax ba ila yawmi diin borom boobu subhanahu wa taala nag ne fay woon na te ña nga xam ne dañoo nekk ay kàccoor na am dañoo tooñ yàlla yàllaa leen bind xéewal leen yombala leen ci kaw suuf ñu ne fu ñukk yàlla bew di jaamu keneen borom bi mu ne fantaqam na minhum dañoo dem fayu leen bugal leen borom bi nag nee na jullit ñi lu mu yàgg yàgg dañ leen dimbali wax naa leen ca njëlbeenu dars bi ne saar yi ma nga wàcc ca makka fekk ne jullit ñaa ngi sonn tumuranke suñu borom ne na seen xel dal kaana xaqan alayna nasrul muminin moo taxit fa lillahi alhamdu yàggul dara yàlla génne ab yonentam wootal kànge mi màkk yi ca badar toroxal leen ñu tegaat ci ay at mu ñëw ubbi màkka ñoom ñépp ñu torox ci kanamam kon la yàlla waxoon moom def na ko borom boobu nag dañuy won ne moo moom adduna ji ñu nekk lépp lu ñu ciy jëriñ départ ba ca moom la départ te moo ko xam ngeen ne taw mooy base dund taw mooy base dund scientifique yi bu ñu amee ay coono ci planète tel lañ fay gën a xool mooy ndox su fa ndox amee dund am na fa su ndox amul dund amu fa borom boobu nag dañuy wax base taw nee na mooy yónni ngelaw yi ngelaw yi yëkkati la nga xam ne muy niir yi te loolu ab processus la boo xam ne évaporation yi am suñu borom nee na maay dajale niir yi yëkkati ko tasaare ko ci kaw asamaan bi def ko ay daggit gannaaw ba gis taw bi di sottee ko suñu borom di ko sotti léeg-léeg Cees taw mu tëb Pout léeg-léeg Louga taw mu tëb Linguère léeg-léeg nangam nangam su ko defee borom bi subhanahu wa taala di ko sotti ci ñu ko neex ñu mu ko sottil ñu daal di ànd ak seen mbégte te léeg-léeg mën na am avant taw bi ñëw demoon nañ ba ñàkk yaakaar te loolu léeg-léeg suñu borom di ko def seetaan baykat yi ba presque 31 juillet taw amul bañ jàpp ne nawetu ren bi c'est fini suñu borom commencé na xitti taw boo xamee ne nii lañ cay amee ci njëriñ amee wuñ ko woon te nawet ya teeloo na jëkk loolu kon la borom bi subhanahu wa taala wax mu ne nag gannaaw bi taw ñëwee xoolal jeexitalu yërmaandu yàlla te mbokk taw kenn xamul la ci nekk cay xéewal dana raxas sunu jaww ji ngeen bu waree taw tawul nit ñi dañuy jaww ji day tàng day xat la nga xam ne mooy pollution bi nga xam ne day ñëw taw yooyu mooy la nga xam ne moo koy raxas ba mu set wecc gannaaw ba ndox moomee doomu aadama yi mën cee am ci seen déeg yi yàlla gardel leen ko ñu koy nekk di ko naan yéen waa Dakar la de guerre bi ngeen di naan suñu maam yi tabaxuñ ko fa yàlla moo ko fa def ngeen xool gàncax yi des millions d'espèces yoo xam ne suñu borom yàlla dana ko génne àll bi yépp naat fanzur ila asaari rahmatillah xoolal jeexitul yërmande yàlla naka lay dekkale suuf mi dee woon yàlla moo ma am kattan nag nee na heure bu ko neexee mboolem ñi mas a dee ci kaw suuf dana leen dëkkalaat te képp koo xam ne am na xel gis lu jëkk li wallahi waroo sikk sàkk ci kattanu yàlla jalla wa ala borom boobu nag tëjee ne wa huwa ala kulli shay'in qadir suñu borom yàlla mooy ki nga xam ne bépp lu mën a doon moo ci am kattan lépp lu mën a doon rek suñu borom yàlla moo ci am kattan moom mi am kattan ci lu mu mën a doon yàlla nañu yàlla boole ci jaamam yëkk a gëm ca sellal ngëm ga boole ñu ci jaamam yi muy teral adduna ak alaxira wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ndax doomu aadama day gis mandarga yuy woñe ne yàlla da koy tabbal aljanna déedéet mbokk julit julit dafay boole yaakaar ak ragal ba baa muy daje ak boroomam mi ngi noonu suñu borom nee na yonent yu jëkk ya dañ ma doon woo yaduuna na rëhaban wa rëhaba judi da ngay boole yaakaar sa sa la nga xam ne ngërëmal boroom ajjanaam ja ragal la nga xam ne muy mbugalam soo demoon ba nga xam ne nag jëf jeex na yaa ngi ci lalu dee boobaa dañoo bëgg nag nga notal yaakaar gi yaakaar ne daal léegi jeex na waaye nag ay njombe moom bëri naa ko lool waaye yàlla yërmande yàlla moo gën a kawe nga gën a notal la nga xam ne mooy yërmande amma dogu ci ne man àddina laa jëm loolee kenn du ko def dogu ci ne keneen àddina la jëm loolee kenn du ko def kenn dong nga sañ wax diw àddina la jëm mooy suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam ndax moom yàlla moo ko doon xamal wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ndax suy taw toq bu nekk day ànd ak malaaka déedéet déedéet loolu moom naam am na ñu koy wax waaye nag loolu amul suñu borom daal moom moo sant malaaka yi ñoom ñooy séddale wërsëgi jaam yi seen kilifa mi ngi tudd mikail ñoom ñooy séddale wërsëgi jaam yi bi iznillah mi ngi noonu sax na ci saxiixu muslim benn waay bu doon dox ci àll ba benn niir kim ko mu dégg ci biir niir bi mu naan tawul diw mi ngi ni sottil taw bi commencé sotti paasewul tool bi gannaaw ba waa ji bi mu demee ci dëkk ba laaj kan mooy diw ñu wan ko ko mu ne ko ah yow sa tool bi loo ciy def mu ne ah tool bi day heure bu ma ko góobee danaa ko def trois parties benn bi mooy jiw bi ma ciy dolli benn bi mooy li may dund ak sama njaboot ci des ma sarax ko masaakiine yi mu ne ko nag loolu moo tax yàlla jagleel la loolu kon yàlla subhanahu wa taala dana sant ay malaakaam ñuy tasaare la nga xam ne mooy ay xéewalam waaye nag yeggul ci foofu wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaw ki nga xam ne dafa génneel sarax ñel way juram wala mu ajal way juram ñoom ñaar ñépp ci am tuyaaba dana am tuyaaba ci sabab bi mu sabab lu baax way juram ci boppam it da cay am tuyaaba loolee moom mi ngi noonu képp ku sabab lu baax yàlla subhanahu wa taala da ko cay jox cër bu toll noonu ca waajur wam ko defal it day am cër bu mat sëkk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaleykum salaam da nga daf si imam fekk rawa na la benn rakka mu toog ci deuxième rakka di taaya ndax yow mi ànd ak moom toog da ngay taaya na am da ngay taaya da nga dégg ku ne ne boo taaya da ngay am ñetti taaya waaye ñetti taay yooyu imam moo la ca yóbbaale yu mel ne boo ñëwoon fekk imam sigg ci rukkoom ndax bi sujud doo ànd ak moom haka yi da ngay ànd ak moom ci sujud yi waaye su paree du tee nga mottali sujud li kon kooku ñëw premier rakka fekk imam siggi na moom day am fukki sujud ci julleem fukki sujud ndax dana ànd ak imam ñaari sujud yu mujj yëm jëkk a def ca loolu rakk ba boobu perti na ko te mu indi yeneen ñeenti rakka yoo xam ne nii lépp da koy nu ñu koy waxati da koy sujjuutal lan moo waral loolu mooy imam moo la ci yóbbu naka noonu it taaye bi imam moo la ci moo la ci tënk loolu tax da ngay taaye ni imam di taaya wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah bismillah mbokk mi waaleykum salaam
deuxième raka muy passé muy passé deuxième sujud dafa sujud benn après mu jóg indi troisième raka bi troisième raka bi mu defee rukkoo bi foofu mu defee jàppee oom bi balaa muy mu fàttali ko erreur bu mu def léegi foofu day def def ru sujud bu passé wala day terminé raka bi remplace par troisième raka
ala kulli haal bokk na ci lu borom xam-xam yi di wax heure boo xamee ni ni fàtte nga benn sujud ca fasagoo rakk ba ca topp su boobaa da ngay rot dem sujooti ko amma bu doon tene ne noonu nga ko waxee da nga fàtte benn sujud nga jóg taxaw bi nga jàngee fatiha nga rokkoo ba siggi sa xel ne ah man kat sànq benn sujud laa sujud dañ naan kon rakk boobu bàyyi ko deuxième rakk la woon bàyyi ko rakk bi nga nekk nga xam ne moo war a nekk si troisième rakka nga considéré ko deuxième rakka heure boo fasee rakk ba ca topp rek la nga fàtte woon ca bu njëkk ba muy ponk su boobaa mënatoo ko dabantal bii nga nekk nga koy remplacer bu dee fasagoo rukoo ba nag su boobaa da ngay dem directement def ko soo paree nga sujud la nga xam ne nii moom mooy baada salaam te yokk ba nga yokk julli ga wallahu subhanahu wa taala aalam waaw xam naa yaa ngi ci rukkoo bokk na loo xam ne nii da mooy fas nu ñu koy waxee sa rakk bi mooy siggi nga ci rukkoo bi mais bu dee da ngaa nekk ci rukkoo bi rek saxal dem ci rotal nga sujjuuti soo sujjuutee considéré loolu muy la nga xam ne mooy rakka amaana bu dee da ngaa sigg nga xam ne ko rakk bi moom fasu na sa xel doog caa dem rakk boobu bi nga juum da nga koy éliminer sa deuxième rakk bi ngay def mu nekk deuxième sa troisième rakka boobu ngay def mu nekk deuxième rakka wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah ah sansu toroxlu waaw toroxlu mooy suufe ci kanamu yàlla nangul ko mooy lu yàlla santaane nga nangul yàlla def ko lu mu tere nga nangul yàlla tere ko firiwul ni toroxlu comme nañuy waxee ne Aïcha radiallahu anha gis na benn waay mi ngi bokk yëre yi naan tenkam tenkam ñu ne waa kii mu ne waa kii lu ko dal ñu ne ah kii de moom dafa toroxlul yàlla bi Aïcha ne leen bisimilah jàmm Omar ibnul Xattaab ko gënoon toroxlul yàlla fuuf te ku masaan dàq jàpp la fu masaan wax ñëpp dégg ko kon ragal yàlla du loolu toroxlul yàlla mooy lan mooy alqaanitiin almuxbitiin mooy ñi nga xam ne lu yàlla santaan nañu def lu yàlla te dañu bàyyi booleeg nag tiit mbugalam yaakaar yërmandeem lii mooy la nga xam ne mooy ay toroxlul borom bi subhanahu wa taala mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam na mën nañ ah mbokk bi dafa yàgg yëkkati waaw ñu mujj ci moom rek bisimilah waaw waaleykum salaam ñu rey ay nag waaw lan moo tax ñu rey nag yi mu ne lan ah dafa yéex a taw ah ñu ñu ñu rey ay nag ah pour pour pour pour pour génnee sarax wa ala kulli xaal la chaque année bu dee ne dañoo ñàkk a taw doomu aadama yi dañoo war a def lu ñuy tudde salaatul istisqa mooy julli ñaan taw lu ko jiitu nag sopp nañ ci nit ñi ñu tuub bakkaar yi génn ay sarax sarax boobee bu dee nag ba dañ caa jublu ne nañ ko rey xool miskin yi nga xam ne day gëñ nañu lekk yàpp ñu sarax leen ko loolee moom dara néewu ci mais bu dee jàpp ne ne jëmmi rey nag dafay am lenn lu muy def su boobaa loolu moom islam du ko du ko daganal waaye daal buñ ci jubloo rek mooy yàlla rek a tax mooy dañ koy rey sarxe ko ngir nit ñi lekk ko loolee moom da ngay gis ne lu l'islam yoonal la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam subhanaka allahuma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk